ginnaaw dogal bi nga xamante ne leaderam di Déthié Fall jël na ko jëm ci li nga xamante ne moom moo di élection yi moom Ibrahima Goumbala moom tamit daal dina feddi ab kóolu dem fa yéene ci ànd ak Pastef ci li nga xamante ne moom moo di législative yi. a ñëw fi mais dafa am lu ko bett moo tax ñëw fii Axmaloo ñi nga xam ne moo fi nekkal tam Pastef également moom it dafa am final boo xam ne ko pare ne fii waaye jeunesse patriotique waroon nañ fi ñëw xam naa peut-être dañu jàpp ne heure bi te bëgguma tënk jigéen ndax reer bi waa ASC Cosaan également Mbaye Diop nekk vice président ak jour ñoom ñëpp amoon yéen a ñëw feesal fii ba dañoo newoon ko ak frère am leader Ousmane Sonko ñi nga xam ne nekkoon nañ ci coalition Yewwi Askan Wi ñu xeex un combat boo xam ne moo nekkoon régime bu ci nekkoon en place depuis douze ans nga xam ne caxat caxate réew mi

comme ki ñu xeexal dafa bëri pexe bu am candidat nga xam ne bu ñu tour ki nga xam ne moo jiitu ci tour bu amee ñu ñëpp ñu ànd sot ko mu daanu jeex yàlla bi dara tëwul te gaaw ci pexew pexem jàmm moom moo fexe ba premier tour Ousmane Sonko candidat Pastef daal di ko gagné. am ak euh, euh, le président Ousmane Sonko donte xaritam la ndax collaboration bi nga xam ne amoon nañ ko muy collaboration politique. dem dama ba nekk ay xarit collaboration amitié fraternité loolu moo def sa diggante Sénégal yëpp xam nañ loolu loolu kenn umpalu kon umpalu ko bu ñu toogee nag ba nga ba nga xam ne déggante wuñ tey moom it bëggoon na ko mettre à l'aise également président it ñëw fekk réew mi fu day waar foo xam ne lañ ko waxoon yëpp dara du ci dëgg comme foogoon Sénégal ak fa Sénégal nekk vraiment am un écart bu da bu garaaw a garaaw loolu tënkoon na ko bu nga xam ne xëy na la mu war a xaar ak la mu war a def yëpp bëri na lu ci loo xam ne. réew mi la taloon léegi bi demee ne ba toog fekk na boobu président de ci tey toog na ba élection yu jub si déggantewuñ ci ci moom as gor la bëggul ñëw sax mu xëy ne naa am daraame dafa toog naa dem ci assemblée. loolu la ma taxoon def benn coalition bu ñu tuddee coalition de surveillance la woon moom la woon ak kalifa Sall ak PUR ñu teg seen coalition bi tuddee ko coalition sàmm sa kàddu sa kàddu boobu nag bañ ca nekkee. continuer dañoo dawal ab diir ndax li may wax nii baax naa leeral nit ñi xam parce que ñu bëri dañ ko umpale bu ñu dawalee ab diir beneen coalition juddu boo xam ne coalition boobu juddu woon na sax amaana information bu journaliste amutoon coalition boo xam ne Barthélemy Dias moo ko jiite woon ànd ca ak Barthélemy euh, ak Anta Babacar Ngom ànd ca ak Pape bu Fall ànd ca ak Bougane Gueye Dany ànd ca ak Thierno Bocoum leneen ñu ñëwee ñu def jonction entre ñaari coalition yi coalition bi ñoom de ci nekkoon taxawu bi ak PUR ak PRP ñu def jonction moo waral coalition bi rëy ñeneen ñi dugg ci kon coalition dafa évoluer bi mu évoluer nag coalition bi également jël beneen tournure bu wuute ak toute conduite ba nga xam ne tegoon nañ ko conduite ba de surveillance ba nga xam ne au départ ñoom ñaar ñoom ñett bi ñu nekkee lañ ci xalaatoon mooy comme nii programme bi ñu ñu teg ñun ñëpp ko doon xalaat ñoo ko bokkule nañ def benn coalition de surveillance xam ne. liñ di ñu mën leen di ca wax loo xam ne si nii ay problème culte personnel moo ci am ce n'est plus de la politique par les arguments mais ay problème personnel Déthié mënul fekk fekk loolu Déthié mënul toog ci table ji ñu xasee Ousmane Sonko wala bu ñu waxee Ousmane Sonko du ñaaw looloo waral mu jël recul looloo waral soppi yi mujj yépp ngeen gis coalition boobu def ko gisuleen fa Déthié Fall te boobu président Ousmane Sonko wóowu ko amagul benn contact ak état mais moom ci boppam moo nekkutoon à l'aise xam ne lii mu dugg ñii fañ ko jëmale ak moom lam ca na moom daa wute moo tax mu jël recul delluwaat ginnaaw yokk nag ba Ousmane Sonko wooye kon xam moom sax bàyyi woon na balaa ñu koy woo dañ ko wooyee mu ne fa xam du daal di dem kon loolu Sénégal yëpp dañ ko war a apprécier war ko ci sant bu baax a baax ndax ak noowul la def moo tax loolu dafa jaadul ñu koy leeral nit ñi xam parce que ñi ñaa ñaaw ñi nga xam ne ay opposant lañ ci wax loo xam ne loolu te loolu demoo lii ma nii parce que man dama toog mu nekk li deg dégg dégguma ci presse aw ma intermédiaire mo tok wax ma comprendre xam ne ki lii mu wax ni lii mooy dëgg donc lolu jaadu ñu leral ko Sénégalais yi xam ko bu fekkon na nguur rek moko ko ñor am ñaari yoon possibilité won mëna dugg ci nguur ci nguuru Ablaye Wade waroon dafa mëna dugg nek ministre bii dir sék di de également Macky Sall bu doon nguur ko ñëw wala poste ministériel doon na nak mom dem ci waaye limu mu def ni as gor lay def ñu ko ñu ni muy ànd ak Ousmane Sonko ñu ànd ko allah ñun tam ak waa responsable locaux yi nekk fii ci Mbacké li nga xam ne moom lañ mëbët mooy une majorité à l'Assemblée nationale yàlla defal leen une majorité confortable ndax bu ñu fàtte ne majorité boobu Sénégal yépp dañ ci war a bàyyi seen woowu tànk ndax xam nga li ko waral majorité boobu moo waral bu ko defee des comptes bi nga bëgg nañ ko Sénégal yépp nañ ñi yoroon nguur ga ni ñu ko yore woon xaalis bi nga xam ne ñi ngi koy wax ak di waxaat na am lañ ci jël ak yooyu pour ñu indiwaat ko il faut ngeen jàppale gars ñi ba am majorité majorité bu am cent député majorité bu dëgër bu leen mën a permettre ñu tegal teg haute cour de justice parce que am na ñi kilifa yoo xam ne boo leen bëggee euh, jugé wala wax ak ñoom haute cour de justice moo leen di jugé loolu nag pour mu mën a tege sénégalais yëpp ñoo toog a bay seen tànk jàppale président Ousmane Sonko ak président Diomaye bañ am majorité écrasante à l'Assemblée nationale